bi xam nga ne la premier janvier coow li benn la diggante Balla Gaye ak booy Niang géejawaay pikin mu mel ni derby bu yàgg la ñu taxaw ak suñu doyen ci làmb muy Iba Kane di expert ba nga xamante ne bii su commentaire ñëpp nangu ndax dafa yàgg ci milieu bi nekk suñu référence ba pare ñuy roy ci moom lu bari grand ñu lay ziar. mais maa ngi lay fay Babacar sëñ sëñ Babacar sama sëriñ. déggal ba yaa ngi si. borom mën mais da ma boole sa téyeer bi sa gannaaw laa toog sa téyeer bu may jox. jibi jibi jëlal ma grand li mu laal mais lépp si yow laay jàngee rek. maa ngi sa gannaaw. mais kontaan si yow vraiment Babacar kontaan am euh, waxtaan ak yow. Euh, loolu dama siy sawar loolu parce que nit ku baax nga daal vraiment da nga ma jox respect cër bu mot a mat loolu dafa may mujj sax jaaxal vraiment loolu lu ma lu ma lu ma la si yow. di wax daal sa chaîne bi Leewtoo TV yàlla na jëm ca kaw ca kanam di wax abonné yàlla nañu gën a yokk xam nga di wax sponsor yi nañu gën a ñëw jàpp si affaire yi pour sama waay gën a mën a am di solo xam nga am lu mu yóbbu kër ga ñu ñëpp moom la ñuy daw donc daal ñu ngi ñaan sponsor yi ñëw di wax ne vraiment le premier janvier bi ñu ñaan yàlla yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam parce que ça mois ñu ngi koy xaar depuis Balla depuis Gaston Mbengue bu mu ko taxawalee yàgg na si weeru koor bële ba weeru koor ñëwaat ba weeru koor a ngi waaj ñëwaat donc le premier janvier ñu war a tàqale ko Balla gay 2 ak Boy Niang war a tàqale ko kii dem wuti lële kële dem wuti ku nekk wuti leneen ku nekk wuti leneen loolu la ñuy xaar si combat bi une semaine si des yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm ay fan yu néew moo ci des boo ñu doon wax préparation ñaari mbër yi seen état physique noo leen gisee. waaw nu mu leen gisee mooy ñoom ñaar ñëpp root nañu mais li ma gis ne booy ñaa teel naa jóg Boy Niang teel naa jóg Boy Niang depuis daaw la jóg si combat bi parce que man gis naa ko fu muy entraîné. fekk naa ko fu muy entraîné te jamono yooyu ma gis ko mu jóg ah yàgg na loolu moo tax ma ne Boy Niang ku njëkk jóg Balla Gaye 2 la si wàllu entraînement am na ay jamono yoo xam ne tey bu ñu waxoon combat bi suba la ba Boy Niang pare na moo tax combat la boo xam ne daal jaral na ñoom ñaar ñëpp jaral na ñaari gan yëpp combat décision la combat défi la. mais mais Boy dafa mel ni dafa lëlu ci combat bi kenn mënu koo gis fenn. mais la moo tax moo tax combat ko jaral moo tax mu dem France ñëwaat parce que combat am na lu mu ko jaral parce que li mu xas-xasloo bi la wax bi la te Boy Niang dafa échoué si Tapha Tine échoué si Lac donc mënul échoué une troisième fois si Balla Gaye 2 il faut mu jaar jéggi siraat bi siraat bi il faut mu jéggi ko pour mu jéggi ko nag il faut mu daan Balla gay 2 avec la manière lan moo ko koy may lan mooy tax mu daan Balla gay 2 loolu mooy loolu mooy affaire bi loo entraîné loo mystique nan ngay daanee Balla Gaye 2 loolu mooy affaire bi. mais Balla tamit toogul gis nañ gis nañ mu yor beneen état de forme bu bokkut ak. Balla Gaye daa dof Balla Gaye daa dof bay toog Balla Gaye doo doful bay toog Balla kii moo daan sama rak kii sa si man rëkk. boo ma daane fan laa jëm Balla bu toogee yab fan sam yi Balla bu toogee mooy yab amateur yi Balla bu toogee mooy yàq carrière am li mu defaroon yëpp day yàqu le premier janvier loolu du kon musa nangu Balla du musa nangu boo ñaa daan boo ñaa du musa nangu Balla daan ko moo tax defet interdit la côté mystique am na place ci ci combat bi. mais c'est normal. gis nañ Père Dégol ak Cheikh ñaar ci àll bi. ñoo ngi si àll bi Balla Gaye da ak mbokkam ñu ngi si àll bi Dégol ak kii ñoo ngi si àll bi loolu charme làmb la mais lépp ci biir géew bi la sëñ Babacar lépp ci biir géew bi la. boo ñaar lan la war a moytu ci jour bi. jàpp. warul nangu Balla jàpp. non non bu mu jàpp jàpp baaxul si booy bu mu nangu Balla ak ko sori si jàpp. bien que nag boo Niang mbër la mun na bëree mun na tuut mais fooru Balla Gaye mooy jàpp nit ki da nga koy xañ fooram nit ki bu àndee système de jeu da ngay jéem a système de jeu boobu bu àndee 4-4-2 àndil leneen Balla dafa mun fooru jàpp comme Balla nu mu war a moytoo bagaar ak ak ak Boy Niang bagaar baaxul si Balla. Balla Balla warut a benn benn la ak Boy Niang. déedéet bagaar baaxul si Boy Niang baaxul si Balla Gaye 2 parce que booy bi dafa mën bagaar te booy bi dafa ko dafa gëm ne moo ko dàq xeex mais Balla mbër la moo xam ne mbër muy riposte la boo ko dóoree day fayu. te Balla Boy Niang loolu lay wut si combat bi na ko nooy fexe dóor booy bala Balla riposté moo tax bagaar baaxul si Balla Balla âge mu toll ak li mu def si làmb combat bi dal la combat dal la. mais Balla attaquant la de est-ce que mën naa xaar. non il est obligé changer stratégie. combat bi warul tëb rek jëli. Boy Niang boo ko andi woon da ko naan mu taxaw xaar xel. non il faut mu taxaw xaar booy Niang. il faut mu taxaw xaar il faut mu changer stratégie comme Boy Niang nu mu war a changer stratégie Boy Niang changement stratégie mooy stratégie défensive mu doon bëre déplacement latéral yooyu mu bàyyi ko il faut mu affronter jéem a toucher bu Balla Gaye 2. jéem a offensif a offensif Balla Gaye 2 pour mu jog moom moo war a jógloo Balla Balla du moom mooy jóg ñëw moom Boy Niang moo war a jógloo Balla Balla warul jóg di fekk Boy Niang. lu bés bu ko defee dina si am lu ko naqari. wala war te jóg di fekki bo xanaa kon àndoog expert yu bëri yi naan mbër warul bàyyi fooram. non loolu amul làmb bu nekk ak stratégie man Balla buy bëreeg yow sax dafa war a changer stratégie parce que xamul kan mooy Babacar xamul Babacar lan la mën a làmb dafa am ay stratégie làmb jàngat la lu tax ñuy léewatoo ay deux minutes une minute pour xool Babacar ndax moom am na dara ndax boo ñaa andi na dara Balla il faut mu boo booy ñaa il faut mu changer lamb naxante la booy ñaa tànk touché wul Balla Gaye 2 du mun a am dara ci combat parce que ba drisé wul Balla Gaye. tànk touché wu ko touché laa la wax de. touché touché. tanq touché wu ko munul am dara ci Balla day jafe ci moom il faut mu touché ko mun a bëree ak moom loolu mooy combat bi. mais combat bu war a neex la te dafa war a neex mais nañu moytu tamit Balla changé taxaw Boy Niang taxaw loolu mun na sax niilal combat bi loolu du neexal combat bi parce que léegi 15 minutes la ñuy bëre. grand combat bi 15 minutes. daa gaaw. consommé 15 minutes daa gaaw avertissement itam mun na bëri combat bi yàqu loolu yëpp ñoom ñaar nañ ko sóoraale ñu ngi xaar si ñoom daal lu mot 2 ans ñu ngi wax combat bi. nañ ko bëre si fair play nañ ko bëre si sportivité nañu bëree bëre bu neex parce que combat bi dafa war a neex dafa war a neex Balla Gaye 2 mooy làmb Balla Gaye 2 moo njëkk daan Yékini Balla Gaye 2 moo njëkk daan Coly Faye Balla Gaye 2 moo njëkk daan Mame Gor Diouf Balla Gaye 2 moo njëkk daan Bac Seras ak ñeneen ak ñeneen moo njëkk daan Modou njëkk daan Yékini Boy Niang 2 da ngay xool dugg géejawaay ak lim fa def yëpp donc ça veut moom li may yàgg di wax rek am na luñ ko dee liñ ko dee mooy lan yow da ngay mën Balla Gaye 2 demal nga daan ko mais pour mu daan ko nag il faut mu jël ay responsabilité Balla Gaye Boy Niang daa war a jël ay responsabilité ci combat bi yàgg na ko jël nag parce que affronté Tapha Tine affronté Lac 2 affronté Sa Thiès affronté Garga Mbossé affronté Gouy Gui kooku da ngaa jël ses responsabilités ba àgg fi nga àgg mais responsable bu koy jël bii yoon mooy mu ngi bëre ndaanaan le meilleur lutteur de ces dernières années mu ngi bëre ki nga xam ne 26 ans la nekk roi de arènes mu ngi bëre mbër moo xam ne dañ mooy Yékini ñëpp ko fi bàyyi woon Balla Gaye dem jël ko booy bëre kooku nag dangay jël say responsabilité andi lu bees tàq waa pikin dañu namm ne ba Boy ñaa ñëw état physique bu mu andi parce que Boy Niang bu simbee ko kenn wax ne andiwul état donc léegi li si mooy nga andi bëre lu bëre mun nga bëre mun nga xeex donc andi loolu loolu la ñuy xaar si moom que le meilleur ñoom ñaar wax nga ko sànq ku ci nekk dafa am foo jaar ku ci nekk am loo mënee mais su ma la doon laaj kañ moo ci kañ moo kan moo ci gën a xajam bëre. kan moo gën a. xajam bëre. xajam bëre moo ëpp ndoxtu bëre. am ndoxtu bëre moom ça dépasse ci biiru combat bi rek Balla wane na fi ay ndoxtu bëre yu bëree bare booy Niang a jamono moom ndoxtu bëre yu bëri. Euh, yóbbu ko temps yi ci combat yu mujj yi mais booy xool bu mu bëreeg ay Sa Kajoor ay ndoxtu la fa andi bu mu bëreeg ay ñoom Brise de ay ndoxtu yu bëri la fa andi donc ça veut dire que combat ak Tapha ak Lac 2 moo tax nit ñi xaw a fàtte mëninu Balla euh, Boy Niang mais li mu bëreeg Sa Thiès loolu boo amul ndoxtu mënoo ko donc am na ay ndoxtu am na mënin mais combat la boo xam ne du ndoxtu bi ci biir géew bi lañ koy wone Balla bu amee ndoxtu fii la koy wone Boy Niang la koy wone combat la boo xam ne daal Balla c'est moom mooy Barcelone làmb. mooy Barcelone làmb. mooy Barcelone làmb parce que day tijji làmb te Boy loolu la soxla Boy Niang daa bëgg kuy teebal bi def ci Amdi Njaay Andi Diop Amdi Njaay Andi Diop loolu la Boy Niang soxla nee na Balla waru ko may loolu. Boy Niang dafa bëgg ku ko ërtal. Boy Niang dafa bëgg ku ko ërtal parce que Boy Niang Balla Gaye de Tapha Tine Balla Gaye 2 bokkul ak ak Lac de Guiers 2 parce que ñooñu seen bëre bokkul ak bëre Balla Balla dafa offensif Balla da lay bàyyi nga bëre Balla da lay bàyyi nga bëre Balla mooy misi lamb da lay bàyyi da lay bal bi Boy Niang Boy boo ko dugalee bal bi da ngay dugal si caaxi de bal bal la ba joxee bal bi Boy Niang Boy Niang ne ko tëwat ci camp bi. waa Pikine dañ koo yen lu diis. moom moo war a ubbi yoon bi balaa soq di ñëw balaa ëmm seen di ñëw balaa amaa di ñëw. maa la boo xam ne daal ah que le meilleur gagne bu war a neex lay neex lay neex incha allah. rendez-vous le premier janvier. le premier janvier que le meilleur gagne. kontaan naa ci yow grand. maa gën a kontaan ci yow. yàlla na sa jàmm yàgg.